وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين mbokk yi salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. comme niñ leen ko waxee woon nu ngi ñëw tey ci wàllu tiim muy kayfiyatu tayammum euh, nan la ñuy tiimee wala sifatu tayammumu nabi sallallahu alayhi wa melokaan bi yonent bi doon tiime tiim nag mbokk yi dafa mel ni lu yomb lool te mu bari njaxas lool bu ci nekk ndax dangay gis ci nit ñi ñu bari di dóor ñetti yoon di dóor ñaari yoon wala di tiim ba ci tënk yeeg euh, conco yeeg yu demee noonu tiim daal comme ni mu gàttee incha allah danañ la leeralal ne la yonent bi sallallahu alayhi wa bu daan tiim benn yoon rek lay teg loxoom te moom mooy li gën su fekkee nit ki def na ñaar yoon loolu laa baas amul benn benn problème waaye yëgal ni saa bu njàpp toxoo rek lu toxal njàpp rek indi na tiim kon nanga bàyyi xel lépp lu toxal njàpp indi na tiim ñaareel bi li gaa yi wax ci tiim ne tiim benn farata la mën a julli loolu wérul ndax li fi jëlee njàpp moo fi indi tiim kon loolu moo may tiim autorité boo xamante ni li njàpp mën feeg lii toj njàpp ñëwul du toj tiim kon loolu na nga ko daal di bàyyi xel bu baax nga yëg nii benn yoon ngay teg sa loxo pour war a tiim ndax ñëw na ci hadisu Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu doon tiim dafa jël ñaari loxoom teg ko ci suuf maanaam fa muy tiimee bi mu ko ci tegee daa di forog ñaari loxoom nii bi mu ci paree ba ci ba ci li la mu daa di ba ci takku jara bi la daa di masa xar kanamam su ko defee tiim li daa di jeex kon tiim nekkul loo xamante ni dafa daa di jël temps kon ñu bàyyi xel ne gis ne ko par exemple lii xeeru tiimukaay la moo xam ci jàkka la nekk wala ci sa biir kër soo ko amul suuf si mën nga cee tiim soo ko amul te amoo ku la indil foo tiimee miir bi nekk sa wet mën nga cee tiim kon ñu xool Ammar ibn Yaasir li mu ñu wanoon ne yonent bi sallallahu alayhi sallam moom la tiimee woon gis nga ko tiimukaay baa ngi nii léegi nag li nga xamante ni moo tax mënatoo njàpp par exemple da nga am gaañu gaañu boo xamante ni ndox mënu koo laal kon tiim mën na koo remplacer am nga janaba waaye boo sangoo mu indil la lor par exemple nga am accident benn gaañu gaañu boo xam ne boo sangoo loru te loolu li ciy tegtal mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na kenn ci saxaaba yi ku àndoon ak ñoom Usaamatu bnu Zayd mu amoon benn gaañu gaañu mu amee janaba ñu ne ko sangul bi mu sangoo nag loolu infecté yokk góom bi mu gaañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen rey ngeen ni teewoon ngeen koo wax mu mu bañ a def loolu mu tiim kon yàlla lu mu ñu tere rek am na lu mu ñu indil la fa tege beneen bi moom mooy. tiim gis nga ko nii la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga sama ñaari loxo comme ni ma ko defee nii teg naa ko ci tiimukaay bi nii jarul nag nga yëkkati sa loxo di raay nii comme ni ma gis ñenn ñi di def di raay nii loolu moom dëgg-dëgg mu baalaga la bokk ci ala kulli tiim daal ñëwul dafa ñëw ngir remplacer la jafe-jafe boo xamante ne am nga ko ci li nga waroon def muy njàpp li moo xam ndox mi dafa sedd lool wala da feebar ba mënuloo tiim wala dangaa am natt bu tax mënoo jàpp nga war a tiim kon nii lay teg loxo yi ma dindi feer yi gis nga ko nii boo tegee loxo yi nii gis nga ko ginnaaw bi nga waxee bismillah nga daa di gis nga ko tënk yi gis nga ko comme na nga defoon ci jàpp bi daa di masa gis nga ko matale ko xaliil ba pare nga indi li gis ko nii ngay tegaatee baaraami loxo yi indi ko ci xar kanam bi mbokk yi loolu rek moom mooy tiim jigéen noonu lay tiime góor noonu lay tiime benn dóor la masaa gis nga tëkk ténk yi ba ci tëkk jara bi daal di indi masaa xar kanam bi loolu mooy tiim jigéen noonu lay tiime góor noonu lay tiim jarul nag nit ki di tiim àgg di ko àggale ci conco fii diggante tëkku jara ba ci conco bokkul ci tiim bokkul ci tiim kon tiim bi ni ko yonante bi doon defee sallasa mooy comme nii ma ko defee teg yëkkati gis nga ko daa xalil baaraam yi ñëw daa di xar kanam bi loolu moom mooy tiim yal na yàlla may ñu dégg ak topp yal na yàlla defal ñu lii suñu miisaanu xasanaat ñu ngi ñaan mbokk jullit yépp ñu defal ñu ñaan yàlla defal ñu tawfiq incha allah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور